te jamono jooju ay nit ñëw ca yéesu nettali mbirum waa galile ya pilaat reylu woon jaxase seen deret ak dereti mala yi ñu rendi woon jébbal leen yàlla mu tontu leen ne mbaadu dangeen a xalaat ne waa galile yooyu dañoo gën a nekk bàkkaarkat ña ca des ndax coono bi ñu daj maa ngi leen di wax ne du dëgg waaye su ngeen tuubul seeni bàkkaar dingeen sànku noonu yéen ñépp itam te fukki nit ak juróom ñett ñu dee bi taaxum kaw ma ca goxu siliwe daanoo ci seen kaw ndax dangeen yaakaar ne ñoo gën a nekk ay tooñkat ñeneen ñi dëkk yerusalem yépp maa ngi leen di wax ne du dëgg waaye su ngeen tuubul seeni bàkkaar dingeen sànku noonu yéen ñépp itam noonu mu daldi leen wax léeb wii nit amoon na ci toolam garab gu ñu naan figg benn bés mu ñëw di ko raasi fekk fa benn doom noonu mu ne surga ba ñettaata ngi may ñëw di raas ci garab gi te duma ci fekk dara gor ko lu tax muy xatal tool bi surga ba tontu ko ne sang bi bàyyiwaat ko fi at mii dinaa wàqi taat wi def ci tos xëj na dina meññ bu ko deful nga gor ko benn bésu noflaay yéesoo ngi doon jàngale ci ab jàngu amoon na fa jigéen ju jàppoon ba feebarloo ko lu wara mat fukki at ak juróom ñett dafa xooge woon te mënul woon a siggi dara bi ko yeesu gisee mu woo ko ne ko soxna si sa feebar deñ na noonu mu teg ko ay loxoom soxna sa siggi ca saasa di màggal yàlla waaye njiitu jàngu ba mer ndax li yéesu fajoon nit ca bésu noflaay ba mu ne mbooloo ma am na juróom benni fan yu nit ñi war liggéey kon war ngeen a ñëw faju ci bés yooyu waaye du ci bésu noflaay bi bésu noflaay bi kenn ku nekk ci yéen di yiwwe ca gétt ga yëkkam walla mbaamam ngir wëggi ko jigéen ji nag bokk ci askanu Ibrahima te seytaane tënk ko fukki at ak juróom ñett ndax kenn waru ko yiwi ci bésu noflaay bi naka la wax loolu noonam yépp daldi ruus waaye mbooloo mi di bég ci jëf yu yéemu yi mu doon def yépp noonu Yeesu neeti lan la nguuru yàlla di nurool lan laa ko mën a méngaleel mi ngi mel ni doomu fuddan gu nit jël ji ko ci toolam mu sax nekk garab ba picc asamaan ñëw tàgg ci caram mu neeti lan laa mën a méngaleek nguuru yàlla mi ngi mel ni lawiir bu jigéen jël jaxase ko ak ñetti àndaari fariñ ba kere tooyel bépp di funki yeesu ngi doon jaar ci ay dëkk yu mag ak yu ndaw di jàngale te jublu yerusalem am ku ko ne borom bi ndax ñiy mucc ñu néew lay doon yeesu ne leen def leen seen kem kàttan ngir dugg ci bunt bu xat bi ndaxte maa ngi leen koy wax ñu bari dinañu jéem a dugg waaye duñu ko man jamono dina ñëw ju boroom kër gi di jóg tëj buntam dingeen nekk ci biti di fëgg naan borom bi ubbil nu dina leen tontu ne xawma fu ngeen bokk bu ko defee dingeen tàmbalee naan noo doon bokk di lekk ak di naan te jàngale nga ci suñuy pénc waaye dina ne nee naa leen xawma fu ngeen bokk yéen ñépp sori leen ma defkati lu bon yi foofa dingeen jooy di yeyu bu ngeen gisee seeni maam Ibrahima Isaaxa Yanqooba ak yonent yépp ci nguuru yàlla te ñu dàq leen ca biti ay nit dinañu jóge penku ak sowu noor ak sud ñëw bokk lekk ci ñam yi yàlla di joxe ci nguuram noonu ñenn ci ñi mujj ñooy jiitu ji te ci ñi jiitu ñooy mujj ca jamono jooja ay farisiyen ñëw ca yéesu ne ko jógal fi dem feneen ndaxte erod a ngi lay wuta rey noonu mu ne leen dem ni bukki boobu ne ko xoolal maa ngi dàq rab yi tey wéral nit ñi tey ak suba te ñetteelu fan ba màgg fa ma yàlla jëmbale waaye faw ma dox sama ite tey suba ginnaaw suba ndaxte su la reye ab yonent feneen fu dul yerusalem yerusalem yerusalem yow mii rey yonent yi te sànni ay doj ndaw yi ba ñu dee aka ma bëggoon a say doom ni ginaar di wuufe ay cuucam te nanguwu leen kon nag yàlla dina bërgël seen kër te maa ngi leen koy wax du ngeen ma gisati ba kere ngeen ne yow mi ñëw ci turu borom bi ku barkeel nga